parce que ay jeunes yu nga xam ni la tey yombul at yu leen yàlla may ngay wax ay docteur lañ fa yomb nekk université di jàngale c'est vrai que moo daal di jàddara mënoon na ko def nga xam naa ni comme ni ngeen ko waxee xamee rek président moo koy bokk fu mu nekk rek mu bokk ko nekk ci wetam <laughs> mais moom itam yoon na bagage yu nga xam ni mën na effectivement jangale ci université yi du beral nuyo aussi suñu sœur fatonaté qui est aussi professeur à l'université donc nga xamni rew mi di como parti rew mi jëlul ay como jëluñu ay kat wala ñi nga xamni buñuy wax duñu duñu duñu am argument donc ay ndaw la Idrissa am yu am valeur donc du leen gërëm bu baax les deux conférenciers Babacar dañ lay nuyu bu baax gis nañu sa engagement sa dévouement dans les réseaux sociaux je crois que ku cof Idrissa rek boo gestoo rek gis Babacar mu def publication doon nañu wax Idrissa jógal Idrissa jógal Idrissa jóg na tey la convergence des leaders femmes jóg nañu parti bi na xam ni fii ak deux mille dix kenn waratul toog parce que lu ma gëm mooy deux mille dix neuf sera la loolu nag ñoo ko war a gëm doxe ko cadre yi jóg jeunes jóg femmes jóg mag ñi jóg ku ci télé sax toog ñaan. yalla inshallah allah ndam bi munu ñëw munu ñoo raw 2019. politique xalé kessa baxu baaxu ca mag yi kese baaxu ca góor yi kese ca bureau mix mo am bureau bobu ñoom ay kaw kaw nak jangunu waye xam nañu suñu droit ndax danoo ndeysaan yaro ci kibaaru Boubacar Sall yalla yalla yàlla ko yaro ci kibaru ngiran Njaay yalla yalla yàlla ko ñu jangal nu politique nak ba sha allah tay ji borom diplôme yi ba def ak ñom débat parce que ñoom dinañu bind man damay toté nay wax rek té ñom bu défé erreur politique de su leen ko bal dé waye man suma ko dé naan andu sala rek kaw kaw la fék yow la nga bëgg doxal yaang koy doxal kon ñoo ngi leen di tatagal bu baax xamni ni di leen cee bét ndax li moy dundal parti li moy doxal parti su ngeen ñé fék fi yeen natto ñom ki yaang ko ba jatarak ñeneen ak ñeneen ak jigéen ñi ngeen and ak ñom dañ koy lu rek introduire Macky Sall masul woon a gént président Sénégal. wax na ko li mu doon tout xala tout son rêve moo doon nekk directeur général Petrosen ambition fa la yemoon directeur général Petrosen xam ngeen sama benn nijaay Birame Diouf bu Petrosen Universo moo doon patron moo tax bi mu jëlee. naturellement daf biiram jub dërëjëf bi métti. Macky Sall cadre la xalaatul ne peut-être à la limite directeur général te loolu xanaa suy bëgg retraité la koy nekk. bu ko yàlla suturaalee ba li lépp am mu nekk tey na ko sant suñu borom mais aussi ko ak tijjile xam ne suñu borom daa été suñu borom pare naa moom kon moom na di mérite li nga xam ne yàlla dafa mom lañu ñu développé mooy le Sénégal à la croisée des chemins croisée des chemins moy selebe yoon selebe yoon dafay bëri ay yoon waye ñëpp xam nañ ne boo demee nag àgg si selebe yoon mënuloo jël yoon yi yëpp c'est pas possible wenn yoon rek ngay jël moom benn du ñaar du ñett du ñeent benn yoon ngay jël foofu la ñu tollu déjà commencé na waaye dafay laaj rapidement ñu wax loo xam ne ni moo tax ñu àgg fi nga xam ne àgg nañ fa te ñu am choix historique boo xam ne war nañ ko mën a def en 2019 choix boo xam ne c'est aussi ce sera aussi historique que l'alternance de 2000 puisque justement échec yi nga xam ne la à partir de 2000 bu ñu a 2019 te kenn xalaatul ne à partir de 2000 nag yëf yi dana mel ni nga xam ne moom la meloon avant ba loolu tax na nag 2019 historicité bi mu war a am mooy exactement bi 2000 di am wala weesu c'est vrai que ce sont des militants ce sont des partisans de Idriss Seck mais wax du les des électeurs lambda ils ont ne bokkuñu sax parti peut-être sax bokkuñu ne parti Et ñoom ñooy des différence jour élection puisque ñëpp xam nañu parti politique c'est une représentativité sur les fichiers électoraux du dara pratiquement mais l'avantage du militant c'est que mooy dem wut ki nga électeur la hey kaay nga votel Bon, dajalee parti partis Sénégal yëpp Sénégal am na loo xam ne toll na si ñaar ñaari téeméeri parti ak juróom fukk ak 257 euh, partis politiques nous ont enregistré au ministère de l'intérieur intérieur certainement am yokk na déjà mais boo boolee loolu yëpp militants yi matul le quart du fichier électoral pour war ce ne ce sont pas les partis politiques ñooy fal ay président même ay député non waaye nag parti politique li nga

les premières années yi parti socialiste 2000 maintenant 40 ans nous lu mais gis nañu parti socialiste bi ñu demee daan ñu parti socialiste li fi changé ci ni les 40 ans de du parti socialiste c'est vrai am liñ fi bàyyi waye ñak ambition amna ci puisque nak 40 ans ku ko def ci rew wax deug yalla war nga mën def lo xamne dañuy faté tuba bi mais faté wuñu tuba bi ñi naan la ah tuba bi dal li fi defon dal danaka parti bi dafa ñu ni déet 2000 jot ñi nga xamne ñom ñoom jeune di ndaw ñi de tous les bords am yaakaar ne ah ñun nag ak lii nga xam ne moom la président Wade wax te ñu gis ko si programme programme bu ambitieux loolu ñu ñëpp xam nañ ko mu nekk moom si boppam nit candidat bu ambitieux boo xam ne am na njàng mi ba pare am na diplôme am na expérience politique ñëpp jàpp jàpp nañ ne kooku noonu su suñu yàlla mayee ba ñu fal ko la nga xam ne amuñu ko ci reñu parti socialist dinañ ko am muy maanaam espoir yi gën a yokk yéege ci kaw ba nga xamné ni ñëpp di nga gis mom néna na su su alternance amul won manam dañuy tëj palais su fekkee dañuy suñ tëjee université dañuy tëj palais lolu moy pour wan leen ni degré d'engagement bi nga xamné ne fi c'était était le quatrième degré de l'engagement lolu amul amul lu ko lu ko féete kaw ñu demoon ba mel nonu ça veut dire que ñooñu pare woon nañu lépp pour que alternance am bo xolé euh

am conviction wante dañuy dese endurance mbaa bu ñu amee endurance dañuy dese am courage bi Idrissa am mbaa bu ñu amee courage dañuy dese la foi le droit ak tamit la la loi bi Idrissa am donc ku ci nekk am na ay pàccu qualité yi xam yoo xam ne ñu ngi ci yow waaye kenn moo moo kenn rek laa xam ci man dajale dafa dajale yooyu yëpp yi may lim nii ambition, conviction, détermination, endurance, persévérance, courage, vérité, vertu, foi, droit, mot, mot dajale lol Moi, je suis leader te suis naa siège parti si man leader et dama koy wax solennellement man ni 2019 Idrissa Seck nous falu j'utilise le si su leader. ni 2019 nous falu président de la République qualité ya nekk ci moom qualité yi rek mënul tax ba man ma bàyyi ko puisque moom moo am yooyu gisuma ko ci kenn même bu fekkente nit du nekk président de la république mais ñun ñëpp gëm nañu ne Idriss Seck Le moham que te a commencé à utiliser parce qu'il n'a jamais utilisé au fond le vrai potentiel du Moham. jamais 2007 il pouvait être président de la République mais il n'avait pas utilisé son potentiel 2012 la dernière carte est là et il est en train d'utiliser cette carte là et il l'utilisera à fond ma jàpp ni le meilleur candidat man daal xaw kan la mais li leer mooy toutes les qualités requises pour un leader bi nga xam ne moom la Sénégal bi Sénégal de 2019 war a soxla pour man daal ci Idrissa Seck la c'est pas les petits enfants là yi nga ñom ne ci ils di yeb di wax Idriss Seck patron Idriss Seck pas son patron ba amuloon sax tout taxaw Idriss Seck Idriss Seck même bi mu président il a le complexe de Idriss Seck ces petits enfants là ñom ñoy tax de ni wax ci lo changer ci ni ñu percevoir candidat ki mujj wax mooy kan mooy Mame Mbaye Niang Mame Mbaye bokkum xamoon na ko moom ci boppam xamoon na ko bu baax si ñun la bokkoon mais dama xam nga li ñun il faut ñu moytu puisque bu politique waxoon naa déjà suñu leader ses qualités nit nitu dëgg la bu ñuy wax nañu fexe ba wax puisque soxla wax wax da ngay nit ñi dañu ne man ba mais même les gens les plus les gens les plus sérieux xam ne pas sérieux parce que Idriss a fait ses preuves ici à Thiès. Il est allé faire ses preuves en France. Il a fait ses preuves partout. vois le ñàng là wax sait même boo ko beaucoup xam na ne kat non mais il faut que noter ko que la notation même choisir dans son dans son intervention nous choisir côté bon? parce que politiciens tam dañuy am stratégie tax choisir côté dafa bëgg justement c'est à retourner contre lui puisque nak xam nga Wang wax nga wax Abdou mais dama lay Abdou pratiquement dal est euh, Mambay tanewul ma Abdou Mbow te ñu bari xamun xamuñ lool Mambay ñoom fac de science la nekkoon fac de science la nekkoon mu cartouché fa kon Mambay ñaa cartouchard la mën nga sax cartouché te puisque nak ba nga xamé ni def na say bourde pour wane ni déjà nular la puisque nular nag yow nga nek contrôleur aérien mais ce domaine de compétence géographie tu la beaucoup. mais nga sax la géographie la plus immédiate la plus élémentaire géographie ou c'est xamuko xamul itam iya wa lan la ak lumu mu koku da fay def risque Seck moromam ci walu njang mais koku mom ana waxuñ ko bopam kenn musu ko wax boppam lool dafa bëggul kenn wax fofu motax muy gaawantu di wax waxu ay diplôme ibn sek nga xamne du moromam du morom ki nga xamne ne mom la yaakaar sax du moromam lolou pour ñaax ñepp la ñi nga xamne ay militant ibn sek la que suñu leader suñu leader saga nañ ko du tay ci jamono abdou diouf saga nañ ko ci jamono ablay wad ñu ngi continuer di ko saga parce que dañ ko ragal parce que nitu deug nit ko am fulla la nit ko am fit la ku ànd ak koku il faut nga jema melni mom bo moom ta melni mom jema la melni mom dara bu ñu yëngël fi ñu nekk ndax fi ñu nekk foofu la nit ñi wara nekk la preuve ñu bëre ñu ngi ni na naan ñun bàyyi nañu waaye dañuy ñëwaat nañ fi des ña dem buñ ñu découragé loo donc bu tànneef ba jotee en 2019 ñu jàpp ni le meilleur candidat le meilleur choix le choix du roi c'est Idrissa Seck la meilleure voix c'est Idrissa Seck en 2019. waaw ah, man Fatou Konaté laa tudd conseillère municipale la Thiès Nord en même temps damay jàngale université Cheikh Anta Diop euh, dama bokk benn kuréel bu tudd convergence des femmes leaders ay cadres ay jigéen yoo xam dañuy activer wu pour euh, comment on appelle pour mieux faire connaître le parti Rewmi et pour mieux faire connaître aussi leur leader leur président c'est-à-dire le président Idrissa Seck tay ndaje bi li taxone ñu sabab ko Sénégal c'est dafa tollu ci situation célébré yoon c'est-à-dire yoon yu bari dañu taxaw légui nak xam nañ ne nit ñi ci seen xel ñi ngi xalaat ban yoon la ñuy a jël parce que yoon yi jaxasoo na waaye ñun ñi ngi leen di digal euh, lool mo taxone sax ñu def forum bi pour wax leen d'abord kan moy Idrissa Seck pour wane tam situation bi ni mu melee ni

ngeen tànn ko parce que tànneef bu gën la parce que daf daf ko wane daf ko wane nag parce que am na nit ñoo xam ne genre am na ñoo xam ne dañuy ñëw rek nekk euh, président de la république par défaut mais moom dafa wane li tax ñu war ko mën a jox suñuy voix en 2019 parce que boo leen seetloo ñëwuñu rek ne Idrissa Seck mooy mooy meilleur choix bi dañoo revenir en arrière dañoo revenir à partir de 1960 l'histoire du Sénégal de 1960 ñu wane Idrissa Seck fi mu jaar situation yi mu vivre expérience yi mu vivre Macky Sall aussi aussi euh, am na yu mu nañ aussi Macky Sall li def ba nek président de la République ñëpp xam nañ situation bi mu fi ñëwee il est il est il est dafa ñëw nek président par défaut la situation socio-économique socio-politique du Sénégal moko mo taxone xamuñu ku l'essentiel mo dañu ne woon dañu fi jëlee wad biñu fi jëlee lool rek lañ doon wax malheureusement on n'avait pas pensé après wad kan lañ fi teg légui nak mom mu ñëw tombé ci mais malheureusement bañ ko joxé suñu réew yaakar gi ñu amone defuko lépp lu ñu yaakaaroon. waaw man man au fait côté boobu xam nga dafa am les rouages dafa am ne kenn du wax ci kaw ci la dafa am ne ci suuf lañ koy wax mais euh, période boobu am yenn situation yoo xam ne permettre woon Idi dem Idi dafa tout le temps sous cabale Idi tout le temps ñi ngi ay affaire di ko teg rek pour ah, galgal ko ba pare tam li yàlla dogal yàlla dafa dogaloon ne Macky Sall day président da ko dogaloon te dafa am léegi nag moom dafa waroon loolu tax ñu tek ko fi mu xamné né da fi ñew ndax loolu yalla tek nako fi dafa waroon góorgóorlu bañ baña tass suñu yaakaar waaye tay suñu yaakaar dafa tass parce que dañu dellu ginnaw nous faisons légui ñun dañoo nekk ci 27 pays yi gëna ndol ci aduna loolu gatché la loolu gatché la on a reculé si point yépp côté démocratie tout a reculé on on vit une dictature on est retourné en on est dañoo dellu ginnaw parce que légui dictature lañ nekk muut muut wa mbaa mort c'est c'est pire ça. léegi non seulement do dem sax way dañ lay tej kasso. personne n'ose plus ose oseetul wax dara léegi yow et puis même mom yalla yalla da ko may occasion mu nek ñu def ay élection mu nek président de la république daf non la wara a chance aussi ñi ci dess. mais pourquoi éliminer képp ko xamni candidat la parce que amul fit te xamna na li tax mu nek président par défaut la par chance motax mu nek. mais tay bu bayé rek ñëpp ñëpp nek au même bu bayé ñëpp ñu ñu jàkkaarloo dina xam bu baax ndax kan moy meilleur bi 2012 par exemple 2012 période bobu chance am la on dit que étoile am la Ouais, de dafa bokone ak ay nawlem ñu am lu ñu waxante woon mu bëgg ko respecter kon lool rek ne serait-ce que ça rek c'est un c'est un il a respecté sa parole loolu dafa raar légui ndax ki fi toog léegi moom respect parole lepp lu mu wax rek nako dindi au moins loolu mom gëmee na loolu mom exemple bu bu bu Macky Sall lepp lu mu waxon bam mu avant président de la République ba légui même bi mu nekkee président teggi na ko teg ko